asalaamaaleykum internet du Sénégal alors tey ñu am mbégte ñëw fii Sen TV dalal fii koo xam ne kenn dootu ko présenté muy oustaz Mouhamed mbay nga xam ne lu baax lañ koy dégg muy wax ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam turandoom tey nag ñu ñëw fii waxtaan ak moom ci gaam nan la ñu war a gàmmoo na ñu war a comporté woo waxtaan nag de manière générale kan mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz ma bàyyi la nga nuyoog internet yi. aousubillahi sami alalimi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ayni rahmati rabbaniyati walyaqutatil mutahaqiqati xaaitati bi markazil fuhumi walmaani saahibi nasiril xaqi bilxaqi talaatil xaqi bilxaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqin walxaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi hëddiyin ila yawmi diini ajaayida maa ngi laa nuyu man itam di la ziar bu baax a baax a baax a baax di nuyu mboolem koo xamante ni rek euh, yaa ngi bàyyi xel Sénégo mo xam abonné nga moo xam koo xamante ni seetaan kan nga waaye nuyu caméraman bi nga xamante ni moom nga àndal di béy di. alors Oustaz sama première question mooy euh, lan moo waral gàmmu dañ koy dégg Sénégal di ko. def chaque année ñaari année yii lañ ko deful côté Tivaouane mais ñeneen ñëpp ñu ngi koy màggal fépp fu ñu toog bu ma bëggoon xam lan mooy waral gàmm lan nga may wax. boo yëgul ma yëgal lani ni yow mi fonk sa anniversaire ba di ko def koo ni defal ma vidéo mu mer defalu la nga mer waaye masa juddug yonent yonentibi Seydil Hadji Malick nee na alaa boo yëgul ma yëgal la ni azimu màggal leen. ñu ni ko moo si lu nuy màggal mu ni laylal wilaadati guddik judduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni ko màggal ko ngir lan mu ne xees ba tan ngir sàkku ba waaye nekkee ñi gàmm ak ñiy raas dem du nu benn mu ni isa lam yakun ndem nekkoo aduulu di jeng naxwal xaraam jëm ci lu araam yow mi jëm Tiwaawan yow mi jëm tuuba yow mi jëm Ñaseen kawlak yow mi jëm Canaba ak foo mën a dem ci dëkk yi maa ngi lay ñaan boo fa demee ba di màggal guddik judduk yonente bi fexeel ba bul fa def lu ñaaw ndax tuyaaba na muy toll ca bis ba koy def boo ca defee bàkkaar noona la nu ko raw lay toll Seydil Xaaji Malik ni gàmmu leen rek la mooy teral jaamu yàlla yi ci lekk ak ci naan waaye Seydil Xaaji Malik nee na wax leen kan mooy yonent bi jaar-jaaram ñu roy ci jikkoom yi rafet muñ yu metti yu nu ko doon teg jàngale melokaanu yonent bi ba ku fa jógee ayda soppaat yonent bi balaa ren di déwén nga gis ni am na lu yokk ci yow ci jikko yonent bi am na lu jullit war a bàyyi te neexul yonent bi nga bàyyi ko loolooy gàmm. alors Oustaz deuxième question bi nag euh, bu ñuy wax gàmm nag fépp bu ñu demee si Kaolack Tiwaawan Touba ñëpp dañ koy màggal guddi googu noonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma waxee su ma waxee yonent bi rek lan nga may njëkk a wax lan nga may njëkk a wax sa xel si lan lay njëkk a dem. Ayda nabi dafa bari tur. nit boo ko dee tagg da ngay xool askan moom bokk nga tagg ko ca yonent bi Abdallah ko jur Abdallah Hashim ko jur Hashim Abdou Manaf ko jur Abdou Manaf Xusay ko jur Xusay Kilaab moo ko jur Kilaab Murata moo ko jur Murata Kaabu moo ko jur kaabu looy moo ko jur looy xaalib moo ko jur xaalib moo ko jur fihri malik moo ko jur malik kinaana moo ko jur kinaana xuzayma moo ko jur mudrikata moo ko jur mudrikata ilias moo ko jur ilias mudar moo ko jur mudar nizar moo ko jur nizar maat moo ko jur maat adnaana ko jur ñoo ñooy wàllu baayam bu dee wàllu yaayam ko jur abdu manaafa ko zuhrata kooko yaayu njol màkk nabi kon baayam ak yaayam ñoo bokk benn maam waaye nabi ak yaayam ak ak baayam ñoo bokk benn maam yonent bi nekk noobul boo xamante ni li tubaab di wax c'est l'exceptionnel lu yàlla waddal yonent bi mooy for doy na ci teraanga kan mooy yonent bi mooy mboolem yonent yi ñoo bokk benn garaat muy alayhi salaatu wasalaam mais saa yoona yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam nga ci teg doy na ci kan mooy yonent bi saa yoo déggee nodd tur yàlla foo ko déggee tur yonent bi moo ci topp wa dammal ilahu isma nabii bi ismihi isa xaalati fi xamsin mu azinu ashhadu saa yoo ne ashhadu an laa ilaha illallah da nga ci teg wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yàlla moo bind alquran moo wax alquran ñu bind yàlla moo wax ci xadisul qudsi li yàllay waxam di bari bari yëpp benn yoon la yàlla musa nuyoo te yonent bi la musa nuyu asalaamu alayka yaa ngi koy wax ci taaya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon yaakaar naa ni teraanga yooyu buñ la ko dajalelee ba doon laaj kuy yonent bi dañ lay wax ni la kooko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw oustaz sànq ñu ngi lay dégg nga wax yonent bi dafa bari woon tur sallallahu alayhi wa sallam lu tax ñu tuddee woon ko tur yooyu yëpp nga ñëwaat ñu si bu fekkee dafa am signification nga wax ñu ko ndax tur yu bari day tegtale njàmbaarul mbir tur yu bari day waral jàmbaar euh, am na koo xam ne boo ko ne da ngaa gi nax mu mer am na koo xam ne boo ne ko da ngaa muus mu meer am na koo xam ne boo ne ko da ngaa nduróog jaan mu mer mais koo gaynde nga tagg ko te moo ne mala mala la lan moo tax jàmbaar gi ne ci gaynde fulla ji ne ci gaynde bu xasee ba jàpp du bàyyi ci turu yonent bi sax gaynde am na ci ngay dégg ay turam ni mu bare yaasin turam la taaxaa turam la muzammil turam la yooyu nag yàllaa ko ko doon wooye ci alxuraan yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal mudassir yaasiin taaha ma anzalna yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne yàlla moo ko tëli bi ay Hamid Mahmoud yëpp waaye ñaari tur yi ci gën a siiw benn bi Ahmed la benn bi Mouhamed la Ahmed waa asamaan ñoo ko ko doon tuddee boo demee ci alxuraan yàlla buy wax ma kaan euh, nu mu tudd bi bi Isa di déclaré yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ni wa mubashiran dinaa leen bi rasulin ci yenent boo xam ni yati mooy dikk min di ci sama ginnaaw ismuhu ahmed est ce que xam nga ni ñaari yonent ñoo am feet ci àdduna mus ngaa dégg feetu maam aadama a ah? mus ngaa dégg feetu yonent yàlla mus ngaa dégg feetu yonent yàlla yaxya bu ñu waxee 24 décembre sa ci kan lay dem du isa bu ñu waxee 31 sa xel ci kan lay dem xam nga lu tax li mu taqaloo ak yonent bi dafa dem rek yonent bi ñëw man bu ma toogee fii xeetu parfum bi may xeeñ ki ma dendal rek moo ko mën a xam jege bu mu jegee yonent bi ni déclaré naa leen ni yonent ngi ñëw ci sama ginnaaw loolu la yàlla teralee Aïssa ba mu am 24 am 31 mais chaque jour nga dégg guddi yonent bi chaque jour. waaye gàmm def ci gën a fés chaque samedi nga dégg ñu def guddi yonent bi chaque samedi nga dégg ñu def cant parce que maamadat fatratun min ar-rusli illa an basharat xawmaha bikal anbiyaa'u yàlla nee na yonent bu fi jaar ci 123000 yi ba ci yonent bi ku dem ba sa mission di waaj a jeex boo déclaré wul ñëw yonent bi man yàlla ma dégradé la ku déclaré wul ñëwug njool màkka man yàlla ma dégradé ma dégradé la kooko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, oustaz ñu taxaw ci gën yi mbindeef parce que moom lañ koy woowee ne nañ lépp lu yàlla sàq moom moo ci gën euh, lu tax ñu tuddee ko noonu gën gi mbindeef ci yonent yi am yëpp ñoom moom ñu tànn ko ci def ko gën gi mbindeef explication bi yomb na bu fekkoon ne am nga boroom kër dama la doon laaj ne la li tax jigéen ñi bari wala ki ngay bëgganteel bàyyi fii jigéen ñëpp romb seen buntu kër benn ñaar romb ñetti buntu kër romb ñeenti buntu kër dugg biir Sénégal jigéen ñi dafa liggéey bari mu dawale bëtam xool la ni ay dem yi damaa neex yeneen jigéen ñi luñ ko def ñi mu romb ci mbedd mi luñ ko def ñi mu bokkal oto ça veut que yàlla la neex mu xool yonent bi ba mu neex ko mu nekk leer parce que yàlla rek a amoon dara amul yàlla bëgg a wane dara jaam ak meloom mu jël ci leeram am na naan loolu amul mais yàlla ci leeram la jël bindee ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam tazal fii damaa iril kaw ni tuftaar yàlla dafa jël leeru leeram wa innahu is aradallahu nash atana bi nu yàlla bëggee bind la maam Cheikh Seydil Haaji Malick wax abaana ci la jële ci la focce min nuurihi ci leeram moom yàlla bind ci nuura nabi alami leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril daan na wax yonent bi euh, man yow ku mag yonent bi ko jibril lu tax nga ma koy laaj mu ko dama lay laaj parce que yàlla mu ko kañ nga remarqué ne yaa ngi doxal yàlla service mu ni ko bi ma yàlla bindee ba tey noppaluma ci service am yonent bi ni nax ndax daawoo romb benn leer bu daan folate mun ko romb naa ko cent vingt quatre mille ans ko jibril yow xale nga man yonent bi la mag man mi maa doon leer googu yàlla jaarale ko ci ay leer fa xudratun minnatun min xabliha izamun wa rahmatun wa saadatun li mustalimi karamatun baadaha fil gaddi manzila hidaya wa nubuwa ba ba kiiraay yi jeex fukki kiiraay ak ñaar yàlla jaarale fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ci leeru yonent bi nag yàlla ci la bind mam Adama maam Adama defaloon juumte aljana lu tax ñu génne ko erreur bu mu def maam Adama wax na bés ni Jibril waxal ma yàlla ni ko waroon na maa boole ci xeetu yonent bi Adama benn tooñ la tooñ ay yéreem naaw kuddu yi naan ko Adama mooy nga sa borom. àjjana naan ko Adama mooy nga sa borom mu génn aljana tumuranke ñun doomu adama yi bokk ci xeetu yonente bi ñaata yoon la ñuy xëy di du naaw te aadama benn yoon la mooy te garab la lekk yéreem naaw jiitalam naaw ay dàllam réer ko yàlla wàcce ko ci coono yow saa yu xëyee di tooñ ça veut dire que yàlla day wane doole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama laa tànn ci biir yonent yi nga jël première première yi première yi yàlla boo koy wax fi mu def yonent bi ak xóot ta ay de 30 minutes mayewul loolu de alors euh, gàmm nag bu ñu koy dégg Tiwaawan mooy gën a fës mais bien vrai que ñeneen ñi dañ koy dañ koy dañuy gàmm ndax yonent bi ñëpp ko bokk euh, mais Seydi Hadj Malick ka bu ñu jëlee Seydi Hadj Malick euh, lu tax mu bàyyi boppam di màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ayda Seydi amul bésu boppam bu doon am bésu boppam daf koy defee ca gaaya ga gane àdduna Seydi El Hadj bu doon am bésu boppam daf koy def muy bésu alxuraan waaye dafa yàlla wa laysa amalun amatuma beneen liggéey alxaaka lu dul dajeek yow yaa amali yow sama yaakaar yow yonent bi leen na ma dese ci àdduna si ma mahabbati cofel bi ma am ci yow wa taazimi wa salami gàmmu yi ma wax la benn secret ay da néew na nga gis tiijaan bu am doom tuddee ko Seydil Hadji malik yonent bi rek parce que branchement bi Alaaji Malick def ci ñoom la gàmm kenn moomu ko yonent bi moo ko moom Seydil Hadji Malick moomu ko mais tàgge boo gis dafa am jàppal diw ceebu jën boo koy tagg yaa ngi koy dugal ca Penda Mbay wala déedéet ceebu jën penda est-ce que penda mbay doo ngay togg ceebu jën est-ce que waa Ndar doo nga koy togg waa Ndakaaru dañ koy togg keneen daf koy togg ku ne sa ceebay neex ci yow mais ceebu jën se penda mbay noonu la gàmm boo nee gàmm faw nga nit ti waawan programme la kenn ku nekk dafa am gëm-gëm yonent bi bu ci nit xuloo bu ci nit xeex parce que bu ma gisee ñu ciy werante ñii ni coupe du monde ñii di màggal damay am kersa parce que sunu ay mag sago bi nu sagoo coono bi ñu daj ci yonent bi bu ñu leen dee concurrence ci yonent bi war nañoo xoolaat suñu bopp ñoom ñëpp koo ci dagg deretam mu toq cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne dafa am bés boo ci gën a ràññeeku Seydil Haaji Maalik jël gàmm mais tey boo duggoon Tuubaa dañuy gàmm ba muy neex boo duggoon Njaasaan dañuy gàmm ba muy neex boo demoon Kaolack dañuy gàmm ba muy neex ça veut dire que gis nga match bi li am solo mooy na jour bi dugal bu jour bi dugalee équipe bi yëpp a bokk yam wala déet benn bii bu xasee ba dugg équipe bi ñëpp a ci yam gàmmu jot na ñëpp xam nañ ci Cheikh Seydil Hadji Malick ñëpp xam nañ ci keneen ñëpp xam nañ ci keneen mais baat bi ma la wax ni la ceebu jën Penda Mbaye gàmmu Tiwaawan Seydil xaaj Malick nag loolu la liggéey digganteem ak yonent bi dama la posé sànq euh, ni la man taalibe Maodo laa waaye bu may liggéey ci télé bi nu ma jël muy Sen TV kenn du xam fi ma bokk parce que jëluñu ma parce que Tidiane laa dañ ma jël parce que kaay nga fexe ba tarixa yi nga ci wax lu rafet pour nit xam ni Mouhamed mbay mii Tijaan la du yomb de mais dama ni la ayda foofu nga toog loo ma laaj ci yonent bi laa la wax bi mu ñëwagul ba ni mu génnee àdduna ba ki mujj ci bàmmeelam ka fa bàyyi benn daalam ban heure la ñu suul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ma laajoon yan ndox la ñu sangee yonent bi fan la ñu ko rootee perkaal bin ko laxasee kan fan lañ ko jëndee ban dëkk kan moo leen ko jaay ndox yi ban teen lañ ko roote ñaata façon teen la wax ma laaj ma ñan ñoo doon sang yonent bi man la nangam la juddu yonent bi boo ma laajoon lan ak lan moo ci xew bu fekkente ne ci biir néeg bi la lampe amul courant amul na yonent bi doon def ay loxom dinaa la ko wax naka la yonent bi gi yaayam ci guddi gi lampe amul courant amul dinaa la ko wax kan ak kan ñoo fekkee réew léegi dinaa la wax kan ak kan la ñaata jigéen la ma wax la ko bisu ngénte yonent bi ñaata nit a fa nekkoon ma wax la ko xar la ñuy jënd dama la koy wax kan moo jëndi woon dama la koy wax rendi xar mi dama la koy wax kan ma ko tuddee Mouhamed ma wax la ko te génnuma Seydil Hadji Malick ah Mouhamed Mbaye bu bëggee yonent bi rek Seydil Hadji malik la loo ma ci laaj ma wax la ko. alo bu ñuy bu ñuy wax nag Sénégal euh, Seydina Mouhamed la ñuy def royukaay bépp jullit moom la ñu bëgg a def royukaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam alors ban jikko la ko yàlla yee ban jikko lañ gënoon naw ci moom. jikko ju rafet wa innaka la ala xam nga la ala mooy lan superlatif ci ñi jàng tubaab superlatif boo ko déggee mooy fi kawe yam wa innaka la ala xuluqin azim ay da yonent bi daan na taxaw xool boppam ci taar xool boppam yonent bi daan na taxaw xool boppam ci seetu nattal góor goo xam ne ku dajeeg yow bu dee ragal daw yonent bi bu naaj bi tàngee day mel ni kunu puudar bu la soree di ñëw day mel ni picc ramatu day day bi daawul njaab da daan bonde day yéeg di wàcc bu la soree di ñëw da nga gis karaw gi day ñuul kuk ndax marjaan ji mu laxasoo bu la soree da ngay foog ni bakken bi dafa yaatu fekk bakken bi dafa sewoon mais leer gi daan daw déparé fii di wàcc leer gi moo daan daw min nuuri irniinihi qad zanna naziruhu isa taajjana an xat xaasa min xakami gis nga bu sa bët gaawee da ngay foog ni bakken bi dafa yaatu fekk leer gi moo daan daw yonent bi bu musaan dugg fu lëndëm bu jiitalee bopp bi day leer ba raw projecteur bi yara bi zalma nuurul alamina kama ala diya in yara saddix wala taximi dafa daan xool boppam ci seetu ni ci sama jëmm ji ni mu taaroo naka te sama xol bee ko gën a rafet li tax xol bi rafet mooy mën a jéggale mën a jélale yonent bi kuy gor war nga jàng ci moom ayda li ma la wax ne la temps moo sonle waaye bu dul woon temps ma wax la li tax yàlla wax ko waay naka la ala xuluqin azim daf ko ko ko ko wax ak malaaka yi wàcc benn aaya ñaari tuuru yàlla la yàllaa ko moom malaayika yi def réunion ni yàlla yow yow yaay raufun n'est-ce pas du tuuru yàlla la yaa rauf yaa rahim yàlla nga jël ñaari tuur yi jox ko yonent bi lu tax yàlla ni leen kaay leen ñu yónni yàgg bu ñu yónnee yàgg di ngeen di xam lu tax man yàlla man ko yaa fi gën jikko mu nekk màkkatal mukarama di waare l'islam doo koy départ ñu nekk dans la clandestinité trois ans mu woote ko nëbb ko wa kaana daawatuhu sala wa kaana daawatuhu sirran salaasa sinina yàlla hu inda daaril arxamil xazimi trois ans la woote nëbb xëy béral yàlla ni ko nëbbér mu waxtaan ak ay bàjjanam l'islam commencé siiw ñemewuñu soxnaam su baax si Khadija bu guddi mësaanda jot xam nga nu Khadija daan def daan na jël cinq cent mille def ci caméra génn ak moom fëgg buntu kër ñu bëgg njool màkk ñu ibbi ndax bëgg ngeen waa ji ñu ne waaw mu jël trois cent mille may leen ni leen bu fëggaat buntu kër ñu ibbi nax bëgg ngeen waaji ñu nu ko déedéet mu génne 200000 may leen ni leen muñ leen rek waaye na ngeen maandu ci moom kenn ñemewul laal yonent bi Abdou Manaf mooy bàyyi Ali ibn Abi Talib parce que bàyyi yonent bi bi nu ëmbee yonent bi ba mu am ñaari weer ci la bàyyam génn àdduna bu ñu demee ba ci kanam laaj ma lu tax tuddeewuñ ko bàyyam te bàyyam tudd Abdallah moom ñu tuddee ko Mouhamed te seen famille amul Mouhamed yaa ngi dégg mais pour wax la jikko ji mu gëne mu commencé metti bi Abdou Manaf ak Khadija génnee àdduna mu dem Taif te tàgguwul yàlla bi muy dem Medina yàllaa ko jox ndigal moo tax déparé na Màkka ba dugg Medina amul ku ko dab sonal ko waaye bi muy dem Taïf dafa demee ci sago boppam yàlla seetaan ko ça veut dire yàlla dafa doon jàngale kilifteef bi mu demee Taïf weer la fa def Seydil Xaaji Malik nee na aqaama sax na indahum ca waa Taïf shahran weer yuraajiuhum di leen waar walam ñu jiibuuhu waaye tontu wunu ko bal ahan kañ maalu ila sajam ñoom ñëpp jéng nañu di ko def lu bon gis nga jógee Taïf di ñibbisi dañ ko boole ay xale ak ay xaj ak ay dof ñu koy sànni xeer di ko sànni xeer pour wax la jikko ju rafet di ko yàlla taggee bi ñu koy sànni xeer ba deret ji commencé sotti wasaaxa addma wasaala dammulil xadami parce que bi muy dem mi ngi ànd ak zeyd ibnu xaarisa wa kaana izaka maa zeyd ibnu xaarisatin yaqihi min nafsihi aw suja min xasami bi ñuy sànni ay xeer zeyd moo ko ko doon baareel ndax cofeel bi mu am ci yonent bi xeer yi di dal zeyd muy naaj muy dal zeyd ba zeyd commencé animé di miir daanu xeer yi ayda ci la commencé day dal ci yonent bi di dal di dal ba dal ci óom bi deret ji commencé di rogalaat yàlla ni jibril demal nga waxal ma ko ni ko maa ko bind de waaye nee ko bis bu dereetam laa li suuf tey la àdduna di tukki waxal ma ko yonent bi jibril naaw ba tolloog moom pourtant ñi ko doon def loolu yàlla mënoon na yabal ay malaaka ñu faagaagul ñooñu mais mu ngi natt position xoolu yonent bi jibril naaw ba tolloog moom ni ko nabi yàlla nee na bu sa deret laalee suuf àdduna tukki mu tourné yam ci benn garabu ma ak kàttanam mu téye ci garab gi yéeg jël tànk bi taf ko ci garab gi ban deretam laal suuf di wax yére bi mu sol nag ma naanal deret ji nag ma ko naanal naanal ma deret ji di wax jiital bi ñaan naanal ma deret ji di ko wax daal mu sol naanal leen ma deret ji naanal leen ma deret ji di wax loolu di ba ci yàgg muy commencé di miir di loof naanal leen ma deret ji naanal leen ma deret ji ba sampu boppam di jàng alxuraan di jàng alxuraan ba ci yàgg ñaari jinne ñoo naw dégg yonent bi inaa sami'naa qur'aanan ajaban yahdi ila rushdi fa amannaa bihi wala nushrika bi rabbinaa ahadan ñaari jinne yi ñëw ni ko yow la kan mu leen man yonent la noo tudd mu ni leen Muhammad yéen fu ngeen dëkk ñaari jinne yi par téeméeri at téeméeri at la ko ndeyam di bu téeméeri at lay raam jinne téeméeri at lay dox par téeméer téeméer yonent bi ne leen fu ngeen dëkk ñaari jinne yi ni ko ñun nii na ñu dëkk mu ne leen yéen de bu dee nii na waa ngeen dëkk Yunus ibnu Mata kon mooy seen yonent ñaari jinne yi xoolante ni ah, effectivement dëgg la yonent bi wax leen ñaata at la dund wax leen li ko yàlla yónneen ak fuñ ko denc ñaari jinne yi ndeysaan kontaan defal yonent bi teraanga ña ngay da wa isaraf naa mais ñaari waay bin gisee yonent bi di miir ñoom ñoo wàcc fompal ko deretam ak kab ba ña ngay muucu taq bi la atrafi rasulin catu yere yonent bi waxal ba himatun tastawi bi la aqili chahimi ñoo ko may raisin mu lekk mais xoolal bi mu ko yàlla di natt xolam ni ko fii nga toll jibril la yónni de ni ko demal nga wax ko ni ko Moussa toll woon fii te moo ñaan maal ak Firawna nuux woote na ay ati ati at dafa xëy ni yàlla inni daawtu xawmi laylan wa naharan fa in wa inni kulama daawtuhum li taxfir lahum jaalu asaabiahum fi azanihim yonent fi jaar yëpp ci gàttal ñoo ñaan ma alak seen xeet yàlla nee na nag yow tey mooy sa bisu ñaan ñaanal xoolal ni ñu la def sa loxo yaa ngi naaj sa tànk yaa ngi naaj lii la dal tey waa ak waa Màkk benn benn montagne nga Màkk benn montagne nga taayif ñaanal yow yonent bi man yàlla ma boole ñaari montagne yi diggante bi kenn dootul dundu ma yenu la yóbbu la beneen dëkk boo demee dinañu la sopp mu ne ay yàlla ma foog ni ñoom ñi ma def lii dangay ngay seen xoli ba mu nooy man yéenewu ma kenn safara bu ma sañoon nga noyel seen xoli ba ñu xam sama woote bi may woote ngi dox ci kanam dina am ñoo xam ne duñu ma gis duñu gis ku gis ku ma gis dinañu ma sopp ba da jël seen ay doom di ma tuddee ñun kan moo ci gis yonent bi ñun la doon tuddee seen ay doom yu góor dinañ ma tuddee seen ay doom yu jigéen dinañu jël seen alal def ci man bu gàmmu jotee ñu sonn ci man yàlla bu ma xalaatee ñooñu ñëw ëllëg ma gis di am cofeel ci man di dagg ay billet màkk yu cher di dem màkk def seen farata jóge fa ñëw Medinatul Munawwara yàlla dinaa leen mun naa leen muñee lii ñii di ma def yàlla ni jibril lu ma la waxoon wa innaka la ala xuluqin azim maa ko ñaanal ma alag leen mais moo ñaan pour ma baal leen kenn gënu ko baax jikko jikko bu rafet boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon ba yàlla tagg ko ci ñun balaa ngay mën piir jekku nit tëj ko prison wallahi bu ma sañoon convocation du am ci àdduna mag ñi ñoo baax dañoo fi xewoon ba am chef de quartier pour lépp ñu defaree ko ci quartier bi mu rafet mais léegi dafa ba valeur chef de amatul ku mer ñaari fan ñetti fan ci sa dëkkandoo rek plainte nga koy bindal ay de plainte dafa gor waru koo def nawleem nañu baale rek mel ni jool màkk ay ci ñu dem. Oustaz euh, yaa ngi wax ci biir waxtaan bi yonent bi du tax ñu tuddee ko Muhammad mën nga indiwaat ñu un peu ñu tur bi fan la sosoo sallallahu alayhi wa yaa ngi laaj lu nit mënta tontu wala lu ñu bari mënta tont boo doon def micro di laaj ay nit ci mbedd mi ni leen lu tax yonent bi tudd Muhammad dina néew ku la ci tontu. xam nga kam la baayam dem bi ko way juróom wu jigéen ëmbee ba maam ñaari weer Ayda yaayam yëgul ni daa ëmb parce que biir bi musta jug yaayu na nabi jaftewul jaarool fu jigéen di jaar musta yeeg mettit ndax attention nag sangu Makka ak Medina ne ci biiram bi ku bëgg a sa yaay boo màggee jaaxal àdduna yaayam musul yëg ni biiram bi ëmb ngi ci jaftewul déggul buur wi déggul dara gisul biir bu génn jool Makka ngi ci biiram bi tëdd xanaa yàlla moo yéeme mu def ñaari weer bàyyi njool Makka génn àdduna waaye xam nga dañ ko ko dee te bàyyu na bi bi mu tollee ci sukuraat dafa demoon Saam wuti commerce bi mu ñëwee ba frontière Abwa moom Makka sorewul ay kilomètres la tension daaneel ko mu ni ñu mu àndal jiitu leen ma Makka bu ker gi seddee ma ñëw bi mu toogee ba ker gi waaj a sedd ñi doon ñi jiitu Makka ni Amina sa borom kër a ngi ñëw bàyyu na bi ko amoon jom la 18 ans la amoon fukki at ak juróom-ñett sa borom kër a ngi ñëw Amina pare di toog toog reer bi demee ba timis gi xaaj bàyyu na bi yëg ci yaramam ni dem màkk wóoratul ci moom mu yëg ni mu ngi sukuraat fi muy sukuraatee am luy wax ak moom ci noppam ni ko bégal ndax yàlla nee na leeru njol màkk ci yow la nekkoon bàyyeekoo na ci yow mu ngi ci Amina waaye yàlla nee na daf lay da ngay jiitu ji sadoom doom aljana ndax sàmm bi nga sàmm boo mën koo téyel njool màkk yëgul sukuraatam mais bagage yi mu yoroon ndeysaan mu am ci benn lam ci ñi mu doon yóbbante mu ne leen bu ngeen demee joxal leen ma ko sama baay Abdul Mutalib la tudd parce que Abdul Mutalib buur la dafa siiw nee leen ko sama soxna bis bu ko yàlla mayee doom lii bu dee lam la bu dee jigéen la na ko ko defal lam bu dee góor la na ko ko defal jaaro mu xoolee ma ko ndax booba foto amul bàyyi na bi génn àdduna. ñi indi bagage yi laaj Abdul Mutalib ni ko ana ana ana soxna sa Abdou man Abdullah Amina génn ñu tàggee ko ko birisma birisma la ñuy wax tàggee ko bàyyi njool màkk mu dem bay yuuxu am xëtif bu ko romb ne ko bul yuuxu de li la yàlla denc la ëpp lépp. ndax bàyyi jol màkk la la dencal mosoo gis ku wax ni yaayu yonent bi way na bàyyi yonent bi ci saasi la taxaw way afa janibil batha min ali hashimin wa jaawara lahdan xaarijan fi lgamaarimi daat hulmanaya daawatan fa ajabaha wa ma tarakat fi naasi misla ibn hashimin ba way wa jeex yaayu na bee ko way ni yàlla yóbbu nga jàmbaar pire yóbbu koo xam ne buñ ko indiwaatoon màkka ñuy laaj gala ni ku joxee du dem kon waa màkka dajale la am nax personnalité bi nekkoon ci bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dem ay yaay na bi xamul ni dafa ëmb ñetti weer ñeenti weer juróomi weer juróom benneelu weer ndox manqué màkk ñu dugg ci àll bi root bi ñu duggee ci àll bi root góor ñi dañu dañoo amoon réserve ci seen bopp seen i soxna rek yaayu bi ànd ak ñoom ci àll bi góor ñi ku ne yaa ngi rootal sa soxna di ko yen ku ne yaa ngi rootal sa soxna di ko yen ku yaa ngi rootal sa soxna di ko yen yaayu na bi di xool góor ñi di root di root ba góor ñi jeex ku mu ni kaay rootal ma nga ni ko wutal jëkkër da nga ay gaaf da ngaa dugg màkk rek sa jëkkër dee yaayu na bi ci jàmbaaram sixième mois muy root di root di root ba bagaan gi fees waaye mënu koo yéen boppam muy xool góor ñi ñu yéen seen seen ay soxna di yóbbu di yéen seen ay soxna di yóbbu ba ñu jeex mu xool àll bi ba àll bi daj gisul ku ko yéen mu ni aka neexoon Abdallah di dund ba bu ma bëggee ku ku ma yéen mu yéen ma aka neexoon ba Abdallah di dund ma bëggee ku ma yéen mu yéen ma mu jékki ba ci àgg dégg ku naan ko yaay ci biir bi muy raisonné comme écho Amina nee na may xool àll bi. yaay bi ummi bi may dégg nee na ma déggaat ba ci yàgg déggaat baatu yaay bi muy raisonné munu maa xam ci sama weewu tànk ba sama karo bopp fu yaay bi génne Amina nee na may xool ci àll bi rek ni mu wéetee nee na mu weex ci xelam ndax damaa jommi nee na mun ko yaay man mi ci sa biir may wax ak yow Amina ni teg mun ko yaay ndax bu ma génnee yéen la doo ko nettali waa màkk Amina ni déedéet yëngal bopp bi jékki ba ci yàgg mu mel ni ku gis loxo leer buy génnee ci jumbaxum di ko téel bagaan gi ajal ko bagaan gi ci kaw yaayu nabi mel ni ku nan waaw man lu xew kan moo ma war a wax yaay ay waay bu ma ëmbee ci dëkk bi lu xew jékki ba ci àgg am lu ko romb luy wax ak moom ni ko euh, min baadi ma xat xaalaa waawun yu xaalu la ha anti xumiltil badra sayidal umami ci sixième mois bi am lu ko wax ni ko amina ya ëmb li gën ci doomu aadama yi sànq tuddal naa la askanu baayu nabi mais déggoo ci Muhammad mais haatif bi liy wax moom mi ngi naan ko isa wadaatihi bu juddoo sammihi na nga ko tuddee muhammadan muhammad al amraktumi ay mbiram nëbbu ko ay yëkkit maanaam loo ci mën a nëbb fa tax tani mi di nga gañe mooy bul ko waxtaane labbe yi période boobu ñu ngi wër parce que wax nañ leen wax nañ ñi leen sangu màkk ak mi euh, euh, sangu jamono dafa war a gane àdduna benn seetkat jar màkk di seetal jigéen ñi naan leen dëkk bii ki gënal yàlla fi lay juddoo ñu ne ko ah ndax ëmb nañ ko mu ne ah ëmb nañ ko de waaye ñu ëmb benn weer boo bokkoo leen ci de ndax romb na benn weer ñi ambu ñaari weer bokkoo leen ci ñi ëmb ñetti weer bokkoo leen ci ñi ëmb ñeente bokkoo leen ci ñi ëmb juróom bokkoo leen ci bu ma juumul mu ngi ci juróom benneelu weer ki ko ëmb ñi ëmb juróom-ñaar bokkuñu looloo waral bi jigéen ñi amee ay doom ñeen fukki jigéen seen yaakaar tas na ngir foogoon ñu ëmb yonent bi sixième mois bi ci la yaayam yëgee ni doom ji Mouhamed lañ ko war a tudde mais problème bi mu am mooy moom Mouhamed mooy lan xamu ko ci askanu bàyyu njol màkka xamu ko moom ci askan yu mu bokk mësta dégg turu Mouhamed waaye du tey yëg na ni am na lu ëmb ci sixième mois moom moo njëkk a xam ne doom ji dañ koy tuddee Mouhamed ñu avancé ba ci kanam alo alors si waxtaan bi suñu yaram daw na parce que yaa ngi wax jaar euh, jaaro yonante beeg yépp na kooku nag ñu naan euh, gàmmul ko bidaa la lan ngay wax nit ñu jàppee ne gàmmu bidaa la bidaa bu rafet am na mooy bidaa xasana mooy bidaa bu rafet am na loo xamante ne liñ sos ci ginnaaw yonent bi du fi jeex avion ci la bokk bu fekkoon ni bidaa kenn du ko war kon ku doon dem màkkatal mukarrama wala wala midinatul munawwara mbaam ngay war ndax yonent bi mbaam la daan war wala gileem li tax ñuy dem màkk naan gàmmu bidaa la lu tax du ñu war mbaam lu tax du ñu war gileem yonent bi est-ce que daan na takk ay veerum yëpp lu tax ñuy takk ay veerum yëpp yonent bi ndax bàyyi woon na fi projecteur lan moo tax ñuy taal projecteur lan moo tax ñuy teg caméra di waaraate ak ku ko mënti wax dama lax ni la yonent yàlla muhammad seydil xaaji malik dafa ni man lam yuxit ayda ku peegul bi jumlati sharia mbooleem faculté yi am inkaaruhu sak weddi fii mahlakatin zaria ci alkande la la jëmee ñu ne alaaji malik ñaata ñaata faculté moo am mu ni wa innahu jaat ala sittina min baadi salaasa mia trois cent soixante faculté yu am la seydil xaaji malik wax nee na ku ko peegul waroo werante ñun imam malik rek sukkandiku ñii Saafi'i lañ sukkandiku ñii Hanbal mag mu mel ni Seydil Haaji Malik bu ne wa mawlidu hoo bihi sharafun wa xiirun fa fi taazimi injaaxu sujuuni wird yokkul cofeelu kenn ci yonent bi waxtaan ak nit mooy tax cofeelam yokku ci yonent bi nga nga toog mayor kurus naan allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim di ko wax man muhammad mbay ba yow ay da nga daanu do ko gis ci àdduna mais mun naa toog di waxtaane yonent bi ba nga jooy ba nga am cofeel ci moom ni bis bu ma amee doom dinaa ko kooku parce que fu waay yendu mu neex noonam soppee ma fa jaar fu waay yendu mu naqari noonam moo fa jaar ayda bu noonu amuloon fu waay yendu mu neex moo tax ku la wax ni gàmm bi daala laaj ko fan la ko teg waa lu tol ni yonent bi waaye yow mi koy wax sa jour anniversaire sa ay doom bett la jox la gâteau anniversaire ni la papa tey la sa anniversaire bis boo daggee gote gâteau bi gore woo parce que mënoo bañ a nangul yonent bi ak gàmm ak yonent bi li ko yàlla defal law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu tabqal bariyatu fi zalma iyallahu bu duloon teg leeru yonent bi ñëpp ay da ci lëndëm la ñuy dund fi mu jaar li mu defal yàlla ak li ko yàlla defal yëpp yow nga mën ko bañ a nangul yonent bi bi mu dem bàyyi fa alxuraan bu ñu dajale te ñi ñaa ngi jàng ay kaamil kon ni ñu waru ñoon am kaamil kon kaamil bi daala parce que dajale bi Seydina Ousmane Ibnu Affan moo ko def wa kam nazala al ayati uh, usallisu bil maqtuli zulman fa yaa lahu laqad jamaa al wa huwa adulu seyna Ousmane ibnu Affan déedéet mat na mais dajaluñ ko ay fooy loon comme ça bi bi muy dem bàyyiwu fi kaamil bu mat Ousmane moo doon bañ mu saaw saxaaba mu ne loo mokkal mun la kaay taril kaay taril kaay taril parce que bu booba booba bi dafa daan woo maa yentu la daan ñëw rek ku mën a nga toog bind ñii mokkal ñii bind mu laaj kenn ku ne loo mokkal kenn ku ne loo jàpp ku ne loo bind ñuy dajale alxuraan di ko dajale di ko dajale ba alxuraan nekk kaamil Seydina Ousmane ibnu Affan a ko def bi mu koy def fekk na Aboubacar Sadiq dem na fekk na Omar ibnu Xataab dem na ci xilaafay Ousmane ibnu Affan la amee kon yonent bi génn na àdduna ba mu am ñaataat booy seet 15 ans 16 ans ñuy doog a dajale alxuraan ndax Aboubacar 2 ans la toog Omar moo ci xaw a diire toog 12 ans ñu doog dajale alxuraan mais bidaa boo xamante ne yonent bi ngay waxtaanee na bi daal ku ko wax dañ laa war a tëral rendi la mbaaxu yonent bi jaloore yonent bi bisu juddoom ñu war koo fàttaliku ku ko bañ a waxtaane danga ngaa iñaan ay da ñu dem oustaz nag bëggoon nañ xam tamit gàmm lu tax defuñu ko bëccëg ñu tàmm guddi gi pour euh, màggal sallallahu alayhi wa sallam li nga ma laaj yëpp neex na ma waaye bii li tax mu gën ma cee neex mooy ma wax la ci yonent bi looy néew looy dégg ay li tax ñuy gàmm guddi nu mu tuddati béy di bi yonent bi waree gane àdduna altine dafa ñëw ci yàlla ni ko yàlla may ma yonent bi juddu altine ma sagoo ko yàlla ni ko dégg naa la talaata ñëw ci yàlla ni ko yàlla may ma yonent bi juddu talaata ma sagoo yàlla ni ko dégg naa la àllarba ñëw ni yàlla may ma yonent bi juddu àllarba ma sagoo ko yàlla ni ko dégg naa la tatabaha bi kal usur wa mu ca ca ca kay fataraxa bi ka aliya u baax daha aliya u bis yi bis bu ne yaa ñaan yàlla samedi noonu dimanche noonu ba yàlla noppi foog ne noppi na bëccëg ñëw ni ko yàlla dimbali ma mu judd bëccëg ma sagoo ko guddi ñëw ni yàlla dimbali ma mu judd guddi ma sagoo ko mala yi xam ni yàlla kat jox na jigéen muy Amina mu ëmb yonent bi te xam nañu ko mala yi def délégation ñoom it wax ak yàlla ni ko mayuñu yonent bi comme mënuñu koo ëmb mënuñu koo jur ndax doomu aadama gën ci loo bind ñu ngi lay ñaan ñun ñun ñun mala yi may ñu ñu nàmpal ko wa naazaati ma ngay xëccoo ak tuyóoru picc yi kaza waxoosun ak njaay àll yi li xanaa nin ngir nàmpal yonent bi xoolal njaay àll yi di weer di ñaan yàlla yàlla di wax ak ñoom naan lisaanul qadri xat naa daa bi haaran ji haaran bi yéextu sat xalimatu naa bi duuni amee naa ko jur waaye nag xalimatu saadiya mooma ci doy bi loolu lépp amee bëccëg ak yëpp yàlla ni leen dama koy partager damay bàyyi ba sedd di jeex tàngoor di dugg wala tàngoor di jeex sedd di dugg damay bàyyi mat gi départ ci guddi gi jeex ci fajar gi fajar kenn moomu ko fajar xamoo ci guddi la bokk xamoo ci bëccëg la bokk fajar foo koy classé guddi gi la mat gi dee départ bi 2 heures du matin di jot 3 heures du matin lan yaay pareel maa ngi ñëw Amina nee na may xool ci néeg bi nee na man ak moom rek néeg bi lëndam lool waaye ma jékki ba caa gis néeg bi di leer mu ni ko yaay pareel maa ngi ñëw Amina nee na may xool ci biir néeg bi luy wax mu ni ko yaay man mi ci sa biir may wax ak yow Moustapha pareel yaay damay ñëw. Amina nee na ma def ni jigéen di def mooy jël naa sër bu weex tàllal sama ñaari tànk teg ci sama kaw jàpp naa ni fi doom di jaar lay jaar parce que musuma yëg jafte musuma yëg faar yu metti musuma yëg ndigg luy metti musuma tifli musuma wacc nee na mu ni ma yaay pareel maa ngi ñëw Amina nee ma taalal sama ñaari tànk jël mbalaan lal ci sama kaw mu ni ko yaay bu may ñëw duma ñëw fi nit ñi di ñëwee yaay ci jumbox lay jaar waaye yaay bu may ganee àdduna di toog ñaari waxtu doo gis balaa ñaari waxtu yooyu yaay am na ñaari laaf yu weex départ nañu ñu ngi ñëw ci néeg bi la ñuy dugg waaye yaay boo leen gisee bugguma nga yuuxu ndax dañu ñëw pour ñëw li war a métti jigéen ba mu war a yëg mat loolu la ñuy dindi ci yow la ma ataaha lazi yaati nisa ara at janaaxa tayri nafa ma hala min jusumi yaay yaay lu weex mooy ñëw amina nee na may xool jékki ba caa gis laa fi weex ayda nee na laafi dugg ci néeg ma leen di xool ndax sama doom wax na ma ko nee na may xool laafi benn laafi roof ci sama faaru ndeyjoor beneen laafi roof sama faaru càmmoñ nee na ma gis ñuy forote mu mel ni péex moo xam ne kilim foo natt péexaay bi passé na ko nee na ñu jékk ba caagu rocceeku ñoom ñaar ma leen di xool ñuy dem ma leen di xool ñuy dem ba gisatuma leen mu nu ko yaay ñaari jigéen a ngi ñëw de kenn ki asiyatu lay tudd jabaru firawna kii des mariama yaayu aysa lay doon yaay danu ma war a jël si dañuy xaar yaay sama yaay nag waaye li déparé sama jumbux ba ci samay oom yàlla mayu la nga gis ko donte nag yaay sama way jur wu jigéen yàlla mayu ko kenn nit musulaa wax ni la may sang yonent bi ba bi mu génnee àdduna benn yoon lan ko sang mooy bi mu génnee àdduna te bin koy sang ay da simiwunu ay yére njol màkk noonu lan ko sang gi yonent bi noon lañ ko doon sange waay ne bi yaa ji tollee ci mat mu ne ko ah yaay paral jigéen ñaa ngi ñëw mooy asiyatu wa xadra at niswatun xat xul na asiyatun wa bintu imrana tiikil xuuru laa takki mi amina nee na may xool ñaari uurul ayn yi nee na asiya ngi njool ca kaw jabar firawna ak mariama yaayu isa nee na ma leen di xool seen bët yaa ngi weex tal nee na ñu taxaw rek di ma xool di muuñ ma leen di xool jékki ba ci yàgg ma dégg am leer gu départ asamaan fëq toiture bi ñëw ba tolloog sama jubbox nee na mu naan ko yaay maa ngi ñëw yaay yaay maa ngi nii di ñëw yaay ndeysaan Amina nee na may xool rek gis tànku ndeyjoor nee na foo natt ci taara weex tàll nee na maa ngi ko gis ak juróomi baaraam yi mu naan ko ngi ñëw yaay yaay maa ngi ñëw léeg-léeg mu dégg mu naan subhanallah alhamdulillah allahu akbar waaye di defal yaayam nan ko yaay maa ngi ñëw yaay yaay maa ngi ñëw Amina nee na may xool ndeysaan tànk bi ndeyjoor bi mu weex tàll muy génn may xool muy génn mu naan ko yaay man mii may ñëw nee na ba tànk bi tolloog oom bi Amina nee na mu mel ne lu mu bloqué ma gis tànk yaay man maay yaay yaay maa ngi nii di ñëw yaay Amina nee na may dégg baat bi mel ni écho yaay maa ngi ñëw waaye ci saa si noonu da ngay gis yàlla di teral àdduna wa kulla maali xuraysin dabaxat na taxat bi xam li xayri ibadillahi kullihimi fa ahdaratil ardu wal asjaaru xat xumilat fa summiyal aamu amal fatxi wa rafami mbooleem garab yi dañoo vertu ñu woon bi njool màkk yi juddu garab yëpp dañoo verte da ngay dégg ñu naan nit ñi dañuy lekkante comme ay jën ay da jën ci biir géej lekkante mais bi yonent gane àdduna amul benn jën bu am droit songu sa morom da daw ba romb rek akolaat ko ni ko sangu màkk mu ngi yaay maa ñëw amina nee na bi ba toll ci ñaari oom ba nga xam ne kenn warta gis ay poojam nee ci la kenn ko jigéen ki fel sama bopp nank nee ma puus mënatumaa xool kaaba gi rafet lool xam nga nit ku kontaan ni muy jaayoo Amina nee na maa kaaba gi maa ma mii lan ma al arkaani nee na kaaba gi di def nii di mel ni dafay jaayee di tiitar ne eh waaye ki taxul ñu tabax ma mu ngi ñëw Amina nee na ma gis ñetti drapeau ñu samp ko ci liwaaul liwaaul hamdi liwaaul karamati liwaaul maghfirati nee na mu naan ko yaay maa ngi ñëw Amina nee na ci wax jooju laa jékki ba caag rek yëgatuma sama bopp ayda amina nee may nelaw di nelaw ba caag ma tiit ci ay nelaw doom buy juddu faw deret génn amina nee na ma ma puus samay tànk na gisuma deret ma xool changé wul sama kanam bu dee nit tëdd na fi bu dee lal bul tal mm, mm, euh, bu ñu lal di nga gis ni am na fu nit tëdd Amina nee na ma xool mu liis ba tey ma xool ndeyjoor gisuma sama doom ma xool càmmoñ gisuma sama doom Amina nee na ma ni bëri jug yuuxu an sama doom Abdul Mutalib tiite néegam daw ni ko lu xew mu ne ko am naa doom mu ne ko amoo doom anamu ñoom ñaar ñu daw génn ci biti ci la ñu indiwaate njool màkk ci biir néeg bi amina nee ma tiim ko xool muy xeeñ parfum boo xam ne bu ma ko nooyee day ñëw ba sama loos bi ndax xet gu neex nee ma gis mu jël baaraamu ndeyjoor bi dugal ci gémmiñ gi maa ngi xool tuñi nee na ma gis soow mi ni muy génnee nee na mu jël baaraamu càmmoñ bi joxoñ ko ci kaw di xool weer wi bu xoolee weer wi dem ndeyjoor bu xoolee mu dem càmmoñ wa is ata kaana masruran yu xaal wa mak xoolan kama kaana maxtuunan bi laa alami mu tëdd ci lal bi liir buy doog a judd naan subhanallah alhamdulillah allahu akbar laa ilaha illa la hawla wala quwata illa billahi alil azim yaayam ni ko cas fop fon ko ndeyjoor fon ko càmmoñ kooku moom moom gàmmu yonent bi alors bëggoon naa xam tamit a bis boobu bisu gàmmu lan la war a gàmmoo normalement. yar ndax lu yàlla bind moo ci gën a yaru dafa daan wax ni yar na ma rabbi sama borom dinaa la mayaat benn émission boo ñëwee ma wax la feebar bi ko njëkk a dal ci nga xam ne yonent bi moo yaru imaam yonent bi moo yaru lu yàlla bind moo ci ëppoon bët dinaa la mës a wax loolu. nga xam ni yaram foo ko natt na ko xale bu feebar ba say bët di naaj ndax deret li ko njëkk a dal ci àdduna mooy wànnent wànnent bi sonaloon na ko ba bët di waaye boobu fekk na yaayam gaañu papam gaañu yaayam dafa gaañu 6 ans bi muy am 6 ans 5 mois lañ ci teg cinq mois yàlla roof ko wànnent dafa wànnent ba bët yi daan génne deret bu daan dox ci naaj bu tàng day gëmm ñaari bët yi ndax bët di fanaan ci ginnaaw maamam bi jur baayam ay fan yoo xamante ni maamam yëgul ne am na lu koy métti xanaa yar fa la yam musul dégg mu onk mbaa mu jàmbat bi ko benn góor ne ko sa sët bi dafa wànnent bàyyil xel doomu jàmbar ji bi ndeyam deewee yàggul te ngay bàyyi xel ni benn doom la nag amul mag bu góor amul rakk bu góor amul mag bu jigéen amul rakk bu jigéen benn doom la màkkatal mu karama te amagul xarit parce que bi mu amee 12 ans lay doog a xaritoog Aboubacar mais mettit boobu yonent bi doon fanaanoo bi ko maamam gisee dafa jooy ni ko yaay yaru lii nan la la mën a dalee Mouhamed ngay fanaan ak man ci benn lal di ndékk noog man te waxoo ma ko ko maam mag nga yaa ngi ci 87 ans te bu ma la laalee mën naa yàq sa ay nelaw moo tax ma la ko daan nëbb comportement yar boobu nekk ci moom bu ko raw war naa nekk ci ñuy gàmmu ndax euh, ma wax la ay reetaan lu gis nga promotion bu amee ci sunu piis yi moo xam ma bañ a publicité seetlul bu promotion amee ku lépp crédit duñ la may promotion saa yu amee ku lépp la may ñi jënd rek la ñuy may mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisa man man Mouhamed Mbaye bisu gàmm bu jotee damay xool asamaan si lépp sama ba day taa dama naa xoolal lii mu doon doon réaliser yëpp suuf si yàlla réalisé yëpp ñun ñi di dox mu réalisé ñu yëpp ba ci téléphone yi ba ci portable yi wane wane doole yonent bi rek la wa antal lazi xosista kulla mahabbatin yàlla dafa ne bu ma neexoon ma am doom dinaa leen ko miinal bu ma neexoon am soxna miinal leen ko ni ma def ba miinal jigéen muy am ëmb bu ma ko miinaloon góor du ngeen ci mën dara waaye man yàlla maay miinal bët ba bët miin dara ba leneen lu xamul ci boppam yàlla ñaari bët ko neex tey ku am benn bët ko dajeeg moom daw parce que ñaari bët la ñu miin boo dajewoon nag ko am ñaari gémmeñ daw mais yàlla nee na miinal na sa bopp bañ a am doom ñu ne ko lu tax mu ni cofeelu doom laa may yonent cofeelu yaay laa may yonent bi cofeelu papa laa may wa anta yow yonent bi allazi yaay ki nga xam ne xusista yow rek la ñu jagleel kulla mahabbatin bépp mbëggeel walam yakku zaakal waxtu xayru ko baadiya yàlla nee na ko bi dara amul laa la bëgg yàlla dafa bëgg yonent bi bëgg yonent bi bëgg yonent bi bëgg yonent bi bëgg yonent bi ba dafa naan ko fayul waa yow yàlla bu demee ba naan yonent bi say soxna bu la buñ la sonalee fase leen xolal yàlla mi yàlla ni ko sa ay soxna buñ la lii ñu lay teg ëpp na yàlla laa wax de nga xam ne xay yii yun si yàlla bu naan ko sa ay soxna lii ñuy teg sa kaw ëpp na fase leen mun ko bàyyil ma téye leen kon nga xam ne kon kenn du yonent bi ci yar dem na ba yàlla di ko wax ci suuratu tahrimi asa rabbuhu in talaqukunna an yubaddila lahu azwajan xayran min kunna muslimatin muminatin ba aaya ba jeex mun ko yàlla bàyyil ma téye leen daan nañ ko def lu ko naqari mu bañ lu leen naqari mu jaral ko mu dem ci jumaa ja di tëdd ba ay lexam di marqué ndax bañ lu naqari ay soxnaam. mbaax googu bu gàmm jotee ay da loolu la war a partagé jóge nañ coupe d'Afrique dem nañu coupe du monde wax yooyu dafa am lu ko ëpp solo téeméeri junni yoon xam nga mooy lan fexe ba am cofeelu yonent bi ci sa dënn bi man dama am cofeel ci seexul xadim ba mu jeex takk damay xool bindam yéemu. dimension bi muy waxee ak yonent bi sa raamal waraa nay la fadlin la lahu wal fadlu inda rasulillahi xararu cheikhul xadim dafa bëgg yonent bi ba mu jeex tàkk maam Baye Niass dégg nga li mu wax gëni an li Ibrahima weer wii la daan wax maam Baye maam Baye Niass weer wii bu ko mësaan a fekk Kaolack ayda bu mësaan a ibbi bataam ñu ni weeru gàmmu dugg na ku mu dajal ci mbedd mi am nga sens du xool yére bu cher ak bu cheru day day xëcc yére yi di tuur nit ñi di génne xaalis bi mu yor di daj ko forfor di leen ko sotti bu nekkul tax mu ni xëni an ndokkeel ñeel na li Ibrahima ñeel Ibrahima Ñas laaxa feeñ na hilaaluhu weeram muy weeru yonent bi hilaalun badaa eh, laaxa hilaalun eh, eh, ah, badaa li naazirina jamaaluhu hilaalu rabiin jaa fii Muhammad muy wax ni weeru yonent bi feeñ na weeru lolli feeñ na te weer wii mooy sama weer man Baay Ñas ku ko gën a bëgg yonent bi ba mu jaral ko mu way ko maam Cheikh Sadou Abi ak meneen maam ak meneen maam yow nga am maam yu mel noonu ci réew mi ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay da am na ñoo xam ne gëmuñu tarixa dañuy nëbbatu jël photo Alaaji Malick def ko seen profil cokkaas keneen pour ko mën a fay pour ñu xeex ci tarixa yi faw ñu yeewu am na koo xam ne dañ koy fay du Tiijaan du Murit du Layen du Xaadir xam nga profil kenn moomu ko day jël photo profilu maam Cheikh Ibrahima Fall wala bu Cheikhul Xadim wala bu Seydil Xaaji Malick wala mu maam Baye Niass dugg ci commentaire jàmbur saaga sa sëriñ yow li ma gis nga bu waxuma la wax de bu ma rombee ku saaga sëriñ damay tiit parce que al martabatu laatu saamix ay da martaba du baale ñaara ci am mu teg la feebar boo dootul wér mbaa mu yóbbu la biir bàmmeel man tey bu ma doon xeex ak policier ci mbedd mi bu ko gendarme rombee ku muy faral est-ce que ñoom ñaar ñoo bokk koor mais ay homme de tenue lañu pourtant danoo faralante noonu la nitu yàlla yi mel nitu yàlla yi ko ci laal wa luxuumu ahlullaahi yàpp nitu yàlla yi summun tooke la xaatilun buy rayee wa bi boodihim boo leen bañee mujjir yi da ngay mujj ilal isaani ci mooy yàlla na tax nañu moytu yooyu ñuy wax ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax ci gàmm gi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay da yonent bi kenn moom waxtaan bi neexoon na nag jàng nañ ci lu bari bëggoon nañ ko gën a yaatal waaye temps bi moo ñu tënk tënk la yow mi oustaz ma bëggoon takkine un peu rek euh, góor ñi parce que ñoom dañ naan la ñuy roy ci yonent bi ne ñeenti soxna la amoon euh, mais nga ñëwaat rek ci ci yonent bi nan la daan comporté woo ay soxnaam balaa may ñëw ci jigéen ñi ñoom tamit. yonent bi ñeenti soxna ñu ñeex ñeent non yonent soxna yi mu amoon yëpp ci dundam fukk ak ñaar la. azwaajuhu ummahatul muminina xibaa waaye ñi mu jot a bàyyi moo tax ah Isa ci la bokk dañ daan laale nag kër gi da daan saf-sap ci kër gi da daan saf-sap ah Isa xam na ni moom la ñu bëgg moo ci gënoon a doon xale biñ koy may yonent bi 6 ans la am 6 ans juróom-benn lañ ko mayee bi mu amee juróom-ñeenti at la sëyi boo gisee lu tax amul ak yonent bi doom bi mu demee ba toll fi jigéen war a toll pour di gis li jigéen war a gis pour ci orma ci la yonent bi wuy ji boroomam moo tax ñoom ñaar jotu ñoo am njaboot te bu ñu yàlla moo mën a programme yonent bi daan na wax yalla ni ko bi ma jugee voyage ñëw li ma war a séddale ba tegu ci seddale naa ko ci maandu waaye xol bi Aïcha la bëgg mënuma ci dara góor goo gis dina am ku mu gën a bëgg waaye waru ko fisal par force say doom am na koo ci gën a bëgg sa ay xarit am na koo ci gën a bëgg yére yi ngay sol am na koo ci gën a bëgg sa ay collègue am na koo ci gën a bëgg mais da ngay ba doo ko fisal da ngay ñoom ci ngor ñëpp xam nañu ni bu dee xaritoo yonent bi Aboubacar la gënoon xaritool saxaaba yi xam nañ ko ci baatin waaye wu ko ci zahir boo yoree ñeenti soxna ñeent sax waxuma la ñeent boo yoree ñett waxuma la sax ñett boo yoree ñaar waxuma ñaar mais boo yoree benn soxna góor gu ko bëgg a yor faw nga ñàkk jom ay da jabar ñàkk jom a ko yor de waxuma nag ñàkk fayda ñàkk fayda mooy ñaari fan yu ñu dégg leen ñëw di leen atte góor saa yu ñu ko atteeg soxnaam xeeb nañ ko rijaalu xawaamuuna ala nisaa yi góor ñi ñooy taxawu jigéen ñi ay da lu soxna mën a def ci àdduna ak lu mën a doon bàyyil bu di jot xam nga lu jigéen mënta muñ benn baat ah, kon yow mën nga ma muñ ay da yow kon mën nga ma muñ ak ni nga nekkee sama xarit jigéen joo ko wax rey nga mais góor du defante ak soxnaam ay ay ay da ngay reewantalu ah da ngay dof doflu di nga xam ne maa la gën a dof kon kër gi ko fay fajaate maa la gën a reew kon kan ma war yar njaboot gi faw ñuy yaru di ndaxtaan soxna yi di fa ak ñoom te li gën a garaaw Aida est-ce que xam nga ni bari na góor foog ni dañ koo liggéey ay mbiram lépp taxaw àqu soxnaama ko dal fa taqullaaha mujjantaluk aju yonent bi arafa bi mujjee def bi muy demuy def xajjatul widaa mooy ajug tàggatoo dafa ni fa taqullaaha ragal leen yàlla fi nisaaikum ci seen ay jigéen wastaw suuta ngeen ni dénkante bi hinna ak ñoom xayran lu baax Cheikh Abdou Khadir Jeylaani bu ñu la waxoon li mu daj ci soxnaam nga tëb dem na ba soxnaam sonal ko ba mu daw génn kër gi àll bi mu demoon di fa lekk da daan gis ay nit yu fa toog bu lekk jotee ñu lekk te du gis ku leen toggal Abdou Xaadir Jeelaani jéggi si Abdou Xaadir ñu baal ma ci kàddu bi ñëw ni leen yéen fu ngeen di lekke ñu ne ko dañuy def tawassul ci Cheikh Abdou Xaadir Jeelaani ci mbugal yi ko soxnaam di mbugal mu koy muñ moom la ñu yàlla di terale mu ni kon li ma sama soxna di def am na ñu ciy lekk daw dellu këram fekk soxna si soppeeku ay soxna soo gis muy déconné rek daa nekk gone waaye ku njaboot bàyyi soxna yi tamit bëggoon na xam oustaz lan la ñu war a roy ci soxna yi bi ban jikkoo tamit la ñu war a séyee euh, roy ko ci soxna yi doy na ci roy kenn muy soxna xadijatu dama lay ñaan bés nga ñëw ma waxtaana la xadijatu xamanteem ak yonent bi ba din koy suule xamanteem laa la ak lu la ci neex dinaa la may benn boo xamante ne xadijatu fi mu xamante ak bi ci yonent bi bi mu amee vingt cinq ans ba nu yonent bi bi muy génn àdduna sallallahu alayhi wa bi xaddi xadijay génn àdduna fekk yonent bi am 57 ans mais wax naa la sànq ne la départu lislaam moo ko téye parce que nag fekk ko fi lu bari l'islam dafa départ rek mu mën financer mën a joxe ayda bépp jigéen bu sàcc ci sa poosu jëkkër nattee ko noppee ngaa am doom ju baax bépp jigéen buy xuloog sa jëkkër sa kàddu njëkk a sa kàddu jëkkër noppee ngaa am doom ju ñu respecté bari na doom yoo xamante ni li leen dal seen ndey moo leen ko teg mooy jigéen juy wax kàddoom gën a kawe kàddu jëkkëram wala jigéen ju ju jëkkëram teg xaalisam mu sàcc ko lu dul ni jëkkëram dafa dafa ñam ñàkk a ñeme dépense su kër charia ni la bu la neexee jëlal ci xaalis bi nga yokk ci dépense su kër gi mais jigéen ñi defaraat toogaay wàcc seen kàddu ay dama daal mënumaa nangu sama jëkkër day doxaan ba tas sa say dem dem fene nekk fa ñaareel yow loolu la def avant ñu lay takk ah imam sama jëkkër day doxaan sama jëkkër day doxaan ba tax la nga tas sa sëy dem sëy feneen nekk fa ñaareel avant ñu lay takk luñ la def doxaanoon la li nga nangul kii lu tax nanguloo ko ku njëkk ki li ngay neexalee ki lay dóor boo ko joxoon ki lay atte ki du leen dégg jigéen fu mu xës ba boof sëy fa ba xamante kooku lu mu muñ ci at li bu ko muñee ci taman gisuma ci sëy metti parce que benn sëy rek laa xam ni civilisé wul mooy sëyu dóor warul ci góor mais bu la dóorul ci sëy lu ne mën nga ko faa muñ ay da góor saa yu dóoree jigéen wàcc na dara jàmm góor warto dóor soxnaam góor warta toroxal soxnaam ci digg pénc parce que ko yow boo ko toroxalee yéenay ànd fanaanaat góor du toroxal soxnaam góor du téye buumu jigéen góor pire bu la jigéen ne may ma baat nga toog diir mun la mayaat ma nga dem waxtaan ak moom njëkk munu ci am ayda jarul yëg naa la ko wàcc bu ngeen jabootee yéen ñaar bàyyi ko mu dem ñaara am fa inna laaha laa yudiiu ajral muhsinin yàlla du sànk jëfu koy def lu baax boo ci daan def lu baax lu mu yàgg yàgg yàgg dina sëyi feneen di la woo téléphone naan la dellu si laa bëgg waaye boo ko fitnaalee ci toroxtàngee fu mu dem danaan foofoo neex jabar dañ koy yàq ba bu demee feneen du fa xaj toog nag nit ba tàyyi jabaram nekk ci sëy ni ko damay tas dellu si mu ne ko toogal foofu nga góorgóorlu boo amee soxla nga wax ma ko ne jigéen ñi muñ jàppale seen ay jëkkër góor ñi jàppale jàppale seen ay soxna ndax bi koy doog a bëgg fu ne jaar nga fa bu ne jënd nga ko ligne bu ne dugg nga ko noonu nga daan jëndee hamburger nag ngir mbëggeel seen dox seen diggante góor ñi mu bàyyi ndax yow sagal ko yow it jigéen ñi nga bàyyi ndax moom na la sagal bu ko defee ànd bi daal di ànd ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan bi neexoon na trop oustaz jàng nañ ci lu bari comme sànq li ma koy waxee ma bàyyi la nga tàggatoog ñu ñuy seetaan ak say fans waaw ñoom dama leen yàgg sopp nag waa Sénégal ñoom eh, dama am cofeel ci ñoom ndax ay jàmbaar lanu ñu ngi liggéey te tamit euh, ñu am fayda ci li ni def lanu xam nga lu jafe bokk bokk gën a jafe ku la ko yàlla defal santal tey Sénégal site internet yi li muy bari bari bari yëpp boo nee Sénégal da ngay jàpp ne mooy papay Sidi parce que nag loolu la yàlla dogal ñëpp xam Sénégal ñaanal leen yàlla yokku leen euh, kàttanal leen di jéggalu borom xam-xam yi may déglu bu fekkee ni dama juum nañu xam ni sama cofeel ci yonent bi mooy bari ci dënn bi ba ni ma koy génne di gaaw ñi nga xamante ni tamit sopp nañu yonent bi yàlla na yàlla dëgëral cofeel googu yàlla defal ñu gàmmu ak jàmm ñu dem ci mboolem dëkk yi ñu bëgg a dem ci jàmm dellu si ci jàmm yàlla def ci réew mi stabilité njiitu réew mi yàlla may ko li mu bëgg ci réew mi ba li mu réalisé yëpp yàlla daal di ko ko mootalil ñi nga xam ne ay opposant la ñuy tam li bëgg bu fekkee ni moo gën ci réew mi yàlla na ko yàlla def bu fekkente ni gënul ci réew mi yàlla na leen yàlla jox lu ko gën ba dunu tar réew mi ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay damaa ngi lay jaajëfal itam bu baax a baax a baax ak sunu caméraman taqabbalallahu ah rabbu naasi daawatana baydi mimma nuhibbu bihi bi jaahi yasin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.